d'abord m'excuser auprès de mes amis qui opèrent au niveau de la DIC de ma saluer le commissaire de la DIC que je connais personnellement mais depuis que le pouvoir politique s'est amusé à instrumentaliser la DIC la DIC a été métamorphosée de la division des investigations criminelles à la division des illusions et des confusions vous allez aller amener des dossiers à la DIC vous allez être totalement confus et vous allez vous-même vous retrouver à chercher qu'est-ce que vous faites à la DIC. Vous prenez des documents, il y a beaucoup de DIC. Wa DIC, si vous parlez enquêté, document, il y a du procureur. Wa procureur, mom, est-ce que ci salle bi fii am na kenn fii wala ci réew est-ce que y a kenn ku fi xalaat rek est-ce que y a fi kenn ku fi que le procureur il est indépendant si quelqu'un croit honnêtement que le procureur est indépendant

nous toog di complot Khalifa Sall moom moo wax sais pas man nag ngeen Je ni dina ay waxam jarul sax ma ciy mere suma sénégalais bu bëgg sénégalais yi xam lu xew ci na am indil ñun xam nañ kuñ koy parce que àdduna bi moo soppeeku fii bi tey lu vais vous jox un exemple rek ci parce que mënuma wax lepp aux États-Unis dafa Donald Trump muy wut Maison Blanche ci ak Hillary Clinton. xam Hillary Clinton koku lan la aux États-Unis mo une première dame n'est na fa sénateur n'est na fa ministre d'État

fait. ak sop moo ci de du vous le que la ci lan ci yakar ci la patrie avant le parti ci dina def mandat de 5 ans au lieu de 7 ans ci wootee cinq emplois ci le ci wootee ndessane ba ci wax waxet wante nak comme le moy Karim yalla dina de dina à la yalla dina atteint.